salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa senegal maa ngi nuyu ñëpp man Basirou sàmb ci àjjuma ji di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sunu xalifa mu Mountakha Mbacké yàlla yàggal ko fi lool te mu wër ba li mu yéene liggéeyal maamam ci Xaadim Rasul mu defal ko ko ginnaaw nag bu ma nuyoo ñëpp macha allah ci site bi nga xam ni ñëpp koy bàyyi xel muy vingt 24 actu Euh, sénégalais yi bëggal ko seen bopp ba pitim réew foo dem 24 actu la ñuy waxtaanee macha allah tey nag ñu dalal ndaanaan ci biir émission bi macha allah ndaanaan boobu nag dëkk Daaru Minam ñu koy wax Alaaji Ali Seck macha allah di jànkatub xasida bu mag kon bu ko defee rek dañuy bàyyi sëñ Alaaji Ali nuyoo. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. yasir lahum bi lazi tansara fa kullu ma yasartoo taysara barki Cheikh Saliou Mbacké barki Serigne Narasan sunu wasila noo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi fat la fadila sëñ Touba mun Mountakha di ko ñaanal suñ boroom yàggal ko fi loolu tam di ñaanal suñ ñaari waajur suñu boroom yàggal leen fi ak bépp taalibeb sëñ Touba di leen ziare yéen waa bi nga xam ne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 ala seydina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman barke xaadim rasul ala rasuli babil usuli li nay li soli ahmaruha ala rasuli babil wusuli li soli ahmaruha i salli dawa ma wasir salama واسكر خلاما لوبناء يا ساليرادا يا سالفادا خلصادا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 comme ni ko sëriñ bi bindee euh, bég nañ ci yow rajas bi am na solo lool macha allah euh, sëñ Alaaji Seck mu mel ni nag dañuy daal di dugg ci question yi rek tuuti euh, sëñ Alaaji Seck kan mooy sëñ Alaaji Seck loolu bëgg njëkk a xam d' abord. waaw jërëjëf sëñ Basiiru sëñ Alaaji sekk taalibib sëñ tuubaala doon jàngkatu xasaa it dëkk Tuubaa Daaru Minam juddee fa màggee fa. xamul lenn lu dul alxuraan ak xasaayit ay woy juróomi nàmbutal ko ci. dëgg ah macha allah ah, alaaji kon wax nga nu sa bopp ah, ndax ñu man ne xam ni ndax alaaji kan mooy eh, idoolam ci jàngkatu xasida yi koo xam ne daf koy jaral mu daan fanaan baasam bi mu nekkee xel di ko diglu ba ban koy jëli di fa fanaan daal ba amu ci sago. wax mu ni ah, diw laa bëgg di ci werante daal mu jaral ko lépp daal maanaam kooku kan la ci jànkat yi ak kan nga ci yore kan moo sa idol daal macha allah. waaw jërëjëf sëñ Bassir yow daal bu ma la déggee maanaam fi ma la mën a tontoo mooy jànkati xasid yëpp samay idol lañ waaye ragal péete day xañ a wërsëg sëñ Ousmane la suñ borom dogal ñu teg ko bët nekk ci ay eram di ci nab nab bi ba suñ borom di ñu jox suñu yëfi bopp te lépp génn ko. moom nag moo nu jaral lépp wax dëgg yàlla ndax dégg nga ni ko wolof di waxee jëmbët fa nga wóolu dénkaane kala doy te moom sama maga sama xarita moo waral daanaka daal moom rek lan teg bët te it moom la ñu roy ci lu baree baree baree bare ndax aw doxinam doonoo neex loolu ma waaw sëñ sekk Seck mu mel ne ndax xasida yi ngay jàng yooyu jàng mi da nga koo dond sama am dafa daan jàng wala da nga amoon mag yuy jàng wala lan la da nga tëb tëb dugg ci wala dafa amoon koo xam ne nii seen famille dafa daan jàng ba nga roy ko ci wala nu mu demee noonu. waaw ba tey it génnut gaal gi dërëm bi génnut gaal gi ndax sëñ Ousmane sama maga ñoo bokk benn day maag moom te woy juróom wu góor day jàng xasaat man mii sama woy jur góor topp na jàngkati xasida yi ku ne topp na ko kokke la ne woon jiite fa benn daayira boo xam ne des ni ëppoon na juróomi téeméeri nit daayira ba ñu ngi ko tuddee woon nooru daara ni Touba Kokki mu doon koo xamante ni jaxasoon ak jànkati xasida yëpp ba suñ borom dogal tey jii mu juddu màgg suñ borom fayee ko loolu mu yéene woon ci jànkati xasida yi sama jëmbu ji kon man waruma def lenn lu jànk. ndeysaan loolu lool loolu daw na yaram kokki Matar Ndoumbé Diop macha allah njëgam ci jum mataram ci kokki ma sàmmkat ndaag foofu moom boo ko tuddee rek daanaka dañuy daal di yëngu ndax sama baay Matar Samb. Euh, fa la jógee muy Belel Diop macha allah waaye sëñ laaj sekk ndax maanaam mi ngi fanaane baas wala ñi ngi koy woo di ko engagé wala comme ndax gars yi li nekk dem ci baas comme war a fekk fa nit engagé wu ni da ngay jàng te diw njëkk la fa est-ce que yow yaa ngi ci yooyu wala nekkoo ci ak est-ce que ñu ngi lay engagé baas di la fay ngay fanaani wala. waaw loolu it danaa ca sawar a tontu mboolem ni ko jànkati xasida yëpp di defee. tañ xam leen ci àdduna bi yëpp ñun ñoo ngi koy defee noonu ñu ngi takk sunuy rajo aj ko ci sunu oto di wër di tourner te mbooleem koo xamante si ni yàlla dogal na nga gis sunu jëmm rek safoo ko te sëriñ bi rek tax ak xasaayid yi boo ruus tawoo ci sa baas ruus ñu laa wuy si waaye nag mënul ñàkk nga am noo def ak ñun loolu àddee lay doon rek daanaka nit ñi sax dañ naan fay waaye xaside yi kenn mënu ko fay waaw te yàlla dogal na waxtu wu nu ñëw ci baas dañuy dégganteeg ñañ war a dégganteel amaana sax ñun duñ dégganteeg ñoom ndax am nañ manager boo xamante nii lu ci baree bari moo koy dox ci suñuy yitte daanaka dem ci baas naan damay jàng ak yooyu te daal di dem sax duñ ci faral di daal. léeg-léeg nag dana ñoom wëllëree yoo xamante ni buñ ñëwee ci seenu baas fekk programme ba xat nekk ci yeneen i yàlla dogal na ne danañ ñëw wax ak ñoom la nga xamante ni moom la ñuy bëgg ngir ñu defal na ko ñu mën a dem ci suñu yitte. loolu dana ñu faral di am ci baas yi lu bare bare bare mais dama jàpp ni comme boo ñëwee ci baas comme fekk fa nit muy sa nawle ci li ngeen yëngu jàpp naa ni war nga bàyyi ba mu yëngu ba pare nga nga nga doog a yëngu bu si heure jotee mais dafa mel ni ñu bari dañ koy def du ma si ci nag mais bari na ñu ñu bari ñu xam ne bu ñu demee ci jàng dañuy imposer rek bëgg ci tàng tànk bi ñu jàng damay jàpp ni nag nga defe ni nga xaar ba këla fa njëkk jàng ba pare nga doog a jàng du ci baax. waaw man nag xam nga. du ma tudd benn jànkat du ma cité benn jànkat lu may jël exemple rek sama jëm bopp ji laa koy jël euh, imagine toi daal man su ma ñëwee ci baas xool na mu demee su ma fekkee samay nawle ndax mbir mi moom dañuy xajalante rek kenn ku ci nekk ci ñun xasida yi yaatu na yaatu goo xamante ni war ngaa mën a yaatal sa morom ci fànn bu mën a maanaam daal nag la buñ ko ku ne jël sa bus dem bul fàngaanoo nag bépp ndax boo ko jëlee da ngay fot waaw. su ma ñëwee danaa ñeneen ñi nga xamante ni sama génération lañ tama sañ leen koo defe ngir ñaan leen ne leen ay yiteem a dab te ñoom it wax dëgg yàlla waxtu ñu dajee ci baas loola am ci suñ diggante rek su ma leen waxee lu mel noonu danañ ma nango loolu te sëñ Tuubaa tax waaw waaw maanaam njàng mi ba tey ci laa nekk ndax sëñ Alaaji Sekk euh, bu demee ci jàng comme comme li nga wax rek xasida yi kenn mënu koo fay lu mu fa jëlee ndax euh, mi ngi mi ngi def compte bancaire wala mi ngi koy dajale wala yaa ngi yaa ngi ciy gis sa bopp addu yu jooju ndax yaa ngi ciy gis sa bopp di ci sa bopp bu baax. waaw lool it ba tey xam nga ñun boo gisee sunu jëmm ak ni ñuy doxalee rek xam ne bokk nañ ci ñi xasida teral ndax dañoo fonk xasaa it lépp loo xam ne des nii am nañ ko rek xasida na ko defal te xasida day fekk fu dara néewut mu def fa dara. ñun ñi di wax ak yow ñu yaafuusoon lan waaye xasida nu indi fii nu ne mboolem luñ ci amaat dañ koy jël wat ko ci xasaayit noonu rek la demee waaye du tey nag ku gis suñu jëmm da nga xam ne ñun xasida teral nan mhm. macha allah ah, ndax ah, sëñ El moom bu bu jàngee ba pare ay awkatam est-ce que mi ngi leen di bàyyi xel xam nga nag léeg-léeg da ngay dégg awkat yu naan diw de du toog fenn ba tudd ñu wala diw bu paree lam ñu yooyoo dafa tuuti baa loolu dellu la pour ñu lay jëppeeg yooyu daal ëllëg boo leen woowee ñuy tayal ndax loolu dal na la sa yow katam déet. loolu nga ma laaj danaa ci sawar a tontu wax dëgg yàlla ñun de bokkuñu ci jàngkat yi suñuy awkat jéppi te wax dëgg yàlla ñoom defuñu leen sax ay awkat dañ leen def ay doomu ndey defu leen ay rakake mag ndax am na ñoo xam ne des ni maa leen mag am na ci ñoo xam ne des ñoom a mag te nga ànd ak man. te kenn ku ci nekk ci ñoom giñ naa ko ci Seexul Xaddim lu ma la sant avant ma la koy wax soo ko xamee sax dag ma koy defal waxtu yàlla dogalee ma toog fu ma mën a ni ci àdduna ñu may woo ngir bëgg a ñëw ci man mbaa may dem ci ñoom tey léeg damay faral di wax naan ñoom koo mën a doon ci àdduna mag ji ma bokkal nday ak bàyyi sax barki Seexul Xaddim samay wa sama samay awkat yi ñoo ma leen gënal xam nga ko waral mooy samay mag mën nañoo man li ma man wala ñoom liñ man te ñoom defalu nu ma ko ci côté bi ñu nekkee nag laax ci njàng mi fii laay fi laay waxee mm. waaye ñoom dañoo bàyyi seen lépp jox ma seen lépp ngir jëmbi sëñ Touba ma boole sëñ Touba xaside yi ma jàppee mm. jël sama diggante ak ñoom dugal ko ci diggante boobu kon daal bu ma gisee ni ma ni ma waxee daal ñoom maanaam yaa ngi leen yaa ngi leen di yaa ngi ànd ak ñoom ànd woo xam ne nii maanaam jëppiwuñ la daal déedéet jëppiwuñ ma di wax dëgg yàlla macha allah te boo jógee programme seen xol dina sedd waaw fas yéene nañ ko léeg-léeg dañuy dem ci programme boo xamante ni ca temps yooyee jàll duñ fa jëlee sax loo xamante ni ñun danañ ci mën a yëkkati ngir jox leen sunu xaalisu bopp la ñuy yëkkati bi ñu moomal sunu bopp pour pour jox leen ko ngir ñu bég waaye ñoom suñu leen koy jox sax dañuy bañ loola léeg-léeg damay jàgg ba noppi war leen yeeyu ñu ne ma jéggal nañ la xam ne loolu koo ko maanaam ànd lu te yàlla tax mënu ko te ñoom dañoo ànd ak man ngir yàlla te yàlla rek tax. dogguma la sax xama benn waaye dafa ñëwoon Sëñ Fall ni ko nu may def ba duma ñàkk mu ni ko del joxe te dafa am jànkat yoo xam ne moom boo bëggee dégg-dégg dañ leen di aw lu lu bari aw leen lu neex sonn ci aw bi waaye buñ paree seeni aw kër sëñ bi nañ leen di yeewee dana dana mer mer goo xam ne ëllëg koo ci woo sax balaa ñëw sëñ bi da lay tardé. waaye waaye sëñ bés yu naa la xamalit ne la. jànkat ay jàmbaar lan awkat yet ay jàmbaar lan. loolu daal naa la ko xamal waaw jànkat Ah. amut bu bon ñëpp baax na. awkat waaye nag di waaye di leen jox ba seen xol waaw waaye dëgg la dëgg la dëgg la xam nga ki ne salli sallim. am ñu ne ko alal mu kallim. yaa ngi dégg kooku kenn amut fayam. waaye ñoom ñi nga xamante ni ñooy awkat yi. Hmm. xam nañ seen bopp ak seen diggante ak jànkat ba ne aw. jànkat bi xam na seen bopp ak ña koy aw. loolu mooy mbir mi. dëgg la mais sëñ Alaaji euh, ndax sëñ yi kan la njëkk aw. kan la njëkk àndal awu ko. man nag moom li yi naan mbappat dama ko def tëb tëbuma rek jàng 2003 ak léegi maa ngi ci njàng mi yàgg naa ci lool fi ne daanaka xaw naa cee xam as maa ngi njëkk ànd ak siñ Ousmane Baye awu naa ko lu toll ci ñaari daan ànd ak euh, ñoom Baye Saliou Diop rek ay ñoom Baye Kabir. ba ma fay fekk naa fa ku ñuy wax sëñ Seex Mbaye ak sëñ Baye ma Samba ak ñu bari ñoo xamante ni ña nga ca. waaw léegi euh, fi nga xamante ni nag moom fa laa fixé yàgg fa loolu amee fa lu ne. ba yàlla dogal ñu may tudd may génn réew mi di jàngee ka ñëw ñu may jox ay junni. ci ginnaaw sëñ Xaadim Géemu Ndaw la bu Touba Daaru Minam. Ah, nit ku baax. ba tey li li nga ma laajoon léegi ci wàllum xasaayit mën naa dellu siwaat foofu ndax xaadim dañoo bokk lépp bakki seexul xaddim mu doon ko yaatu bari na gaa yoo xamante ne ay ñoom Baye Thierno Sambak Moustapha Sambak Serigne Lo Sénaka Saak Mourtala Nguer ñu mën ba fay ñoom ñëpp ñi nga fa woon waaye yàlla na ne suñu xaadim cofeel gi mu amoon ci sama jëmm ji mën naa ne amu ko woon sax ci ñoom loolu nag moom maa ko jël en ndax damaa gis na ma daan ni mu daan loolu nag am naa ci seere tuuti ndax ku ma bokkal ndey ak baay muy bàccoon na sàmm aw na ko ba xëy tukki. macha allah te dara ñaawul nga xam ni bu masaana ñëw rek bu guddee sama yaay ne ko waaye foo nekkoon mu koon xaadim géey ma doon di bu ko defee xolam day daal di sedd ak ñoom bàyyi kaa bi rek euh, Modou Mba Faye xaadim Diop gaa yooyu ñi xaadim nag naa la xamal benn affaire mm. liggéeyam barkeel na li ko waral mooy ñun njëkkuñu ci moom mm. am na ñeneen ñu ko doon aw ñoo xamante ne ñooñu mag ñun defe naa ñun ñetteelu kuréel bi lañ bi yàlla dogalee ñun ñëpp kenn ku ci nekk mu ber la nga nekk ci sa liggéey di liggéey mm. yàlla dogal na am na ñeneen ñoo xamante ne ñëwaat nañ defe naa kon bu ma juumut mooy ñeenteelu mooy juróomeelu kuréelam wala ñeent. maanaam daal moom li liggéeyam day sos ay couleur xale yu ndaw bu ko defee. ñoom it ñuy mënal seen leen ban mokkal. ba mënal seen bopp. mu ñaanal leen ñu demaat feneen. ñeneen ñëwaat ba pare nag boo fa jógee da mën a jàng ndax ku mën a jàng la. laa ilaaha illallaah loolu kay mooy. barke Serigne Touba Mbacké man dama koy wax chaque dama naan ko am na benn kii bu muy bu muy daaj ci sama yaay boobu noonu loolu loolu rek moom man na maa rey sama doom ji loolu mën na maa rey te comme leen wax rek sàq mi way moom géwël rek ko man sama doom jooju daal moom mën na maa rey moom sàq mi way moom géwél ko man ndax li nga rajo fi sànq am na noo doon wàccee sa baat boobu noonu mel ne lu koy gëdd di ko loxo loolu ndeysaan loolu xam nga ni loolu géwél la ko ko man mm-hmm. suñu xaalim nag moom dañoo dañoo yar ci côté yëpp mm-hmm. bu dee jomi jàng suñu xaalim def na ko ci ñoom bu fekkee man a way la damay faral di wax gars yi na leen man sama jëm bopp man naa jël exemple sama bopp ci njàng mi lu baree bari barke Seexul Xaddim man naa way waaye li nga xamante ni moom laa teg sama bët bii damaa bëgg a mën a jàng man. waaw loolu de waaw loolu mooy wér. man damaa bëgg a mën a jàng. Ibrahima boo toogee ci kanamam. waaw. di ko di di ko wax yooyu danaan la la jàng ba pare wax na ko Cheikh Demba Seck rek bu ma juumul man ko mën wuy ma doog a ñëw waay. lu mën a wax. waaw jàngay njëkk mooy mujj. man naa way. ndax ku munta way du toog di bindi wolofal. daajal ko boppam. woo ay awkatam mu ñëw ne leen nii laa bëgg ngeen awoo ma ko. ku mënta way def loolu mën naa ko man piir waaye dama bëgg a mën a jàng mën a jàng daal moo ma doy moo ma doy man xam nga sànq damay faral di ah. euh, lu jafe la mu ngi mel ne mbër mu ndaw ñu boole ko mbër mu mag lu mu entraîné bëpp mbër mu mag mat dana xeeb la ma entraîné xam nga lan mooy problème bi bis buñ taxee ba war a léewtoo ñoom ñaar kee kaw ko suufu ko problème day daal di foofu baas mën nga faa ñëw fekk nit ñi toog nii rek nga ne buñ ma joxee micro ma jàng gis nga kii ñu téye nii micro lu jafee téye la ndaanaan dëgg moo ko mën a téye def ca la ca war te kenn du ko corriger barki Cheikhul Khadim lu jafee ngi nii lu danger it la la nag ndaanaan lu ko bàyyiwut xel danga ci daanu daanootu ci waaw waaw mu mel ni sëñ Alaaji Seck ndax sëñ yi am na comme li ñoom xaadim Kebe di wax ak ñoom xaadim euh, Guèye Seydou Mbaye Ibra Samb comme am say nitu bopp yoo xam ne nii foo nekk dañ la fay fekk léeg-léeg nga toog ci émission ñu woo la wala léeg-léeg ñu jékki-jékki jàngaloo la yëkkati àdd yu bari wala koo xam ne day jékki-jékki woo rek nga nekkut ci njàng mi mu lay teral te sëñ Tuubaa tax ndax sëñ Alaaji mi ngi ak ñooñu. loolu de moom daanaka man moom a fondement man bu dul njàng may jàng sax nit damay gis du xam lu ma doon barke Seexul Xaadim mu bëgg ma dama joxe teraangam waaye nag damay jàpp lépp sëñ Tuubaa si yi dinaa ci cité ñeent ñoo xamante ni munta ñàkk ngir ma tudd leen dama leen di bàyyi xel waaw ah. ki ma ciy jiital sama mag sama xarit la man ñoom ñëpp samay mag lan samay xarit lan sëñ Seex Jang ñu koy wax cek mu daan garde sëriñ Alaaji Baara waaw cek ñu koy wax cek waaw kooku sëñ Basiru waxtu ma gis jàpp na ne daa war a teg dara ci sama loxo bërki dem dañuy waxtaan maak moom ci whatsapp bi ba mu yàgg mu ne ma daam am genn kàddu goo ma wax goo xam ne ne attanutuma ko mënutuma koo dégg nga xam ne façon teraanga bu nit yaakaar ci àdduna moom dama koy defal ñaareel bi ci des ku ñuy wax sëñ moor njaay moom sëñ Saaliw moom sëriñ Saaliw kooku sama nit la sama xarit la sama maga teraanga juru teraanga junne defal na ma ko barki seexul ma xasaayit ñaareel bi ci des nag ñetteel bi ci des ñu ngi koy wax sama mag joo xamante des nii daa sës ci man dëkk te duma rëkk muy sëriñ naar sekk nu koy gën a xam ci ca ndakaaru seexu naa bërki démb damaa woo téléphone ne ma diñ naa ko ci sëñ Salim Mbàkke oto maa la ko njëkk a jox ci xasaay di ngay jàng wallaahi wal kitaabi mm. xamoon na kon nga foofu la mën a yem ñoo bokk ndey ak baay ñaa ñeenteel bi ci des sëñ Moustapha Seck la nga xam ne moom moo yor sama lépp tey jii bu nu maa defal ma def bu ne maa bàyyil ma bàyyi. dëgg moom it ñoo bokkoon ndey ak baay muy sama taawu yaay. xam naa barki Seexul Xaddim lépp lu waay bëgg sama jëmm ji boo ñëwee ci moom bu la mayee loola rek am nga ma waaye bu la ko xañee ñàkk nga ma dootoo ma am. noonu la demee. mais fi may jeexalee rek nga xam ne bii mooy jeexalu kaa par mooy nag yi am na soxna waaw fi mu ne nag moom. Hmm. loolu ñu naan denc defaguñu ko waaw xam nga moo tax. Hmm. dafa am interview yu bari yu ñu may defal dama ko laaj. waaw waaw waaw hmm. danaa la tontu. ah xam nga lu tax amaguma soxna. soxna damaa jàpp ne. maanaam. Euh, lu suñ boroom di dogal la ci doomu aadama. te des koy mën waaye des ko waaw te yàlla dogal na am na ñu ma mag am na sama jenn doom joo xam ne des ni dañ ma koy jox sëñ Xaadim Juuf lañ koy jànkuwul xas dëgg ñi may ñi may aw ci la bokk mi ngi ci jataay bi. Ah. yàlla dogal na moom fan yii rek la takk soxna yàggul dara. am na ñoo xam ne des ni maa leen ëpp moyen ngeen fas soxna. waaye damaa jàpp ne dafa jotagut. te mbir bu jotut su fekkee da nga koo bëgg a fekk je boo yeggee man nga caa bañ am la la gënal da ngay toog ba sa biddiw fenq ba dem yoonam suñ borom dogal na yow mii kat ba nga war a am soxna wala dimanche bu ko defee bu soobee sëñ loolu day daal di yomb. waaye sax yooyu noonu sax sëñ Tuubaa morom waaye. mais yenn ñu ngi koy kii waaw. yooyu waaye lépp de. ñu ngi kii rek moom kii rek. Ah, ah. waaw. waaw waaw. waaye xam nga sax sëñ Basiir yooyu dëgg la waaye moom daal ña nga ca rek. Ah. léegi bu ko defee ñoo ko déggandoo woon nii macha allah mu doon xale bu am talent mën a jàng lool doon daanaan bu mag macha allah kon kàddu yi ak njàngum xasida yi lépp leer na kon bu ko defee dañuy daal di jubali rek ci njàngum xasida gi gaa yi ñëw kuréel bi muy àndal nag daal koy awoo bu ko defee loolu loolu moo ci des jërëjëf sëñ Alaaji sikk naa pon sikk ka ko sàlloo sikkaale koy jaay yambar ya koy tuxit warunoo jub lu kër xaadim sikk naa pon sikk ka ko sàlloo sikkaale koy jaay yambar ya koy tuxit warunoo jub lu kër xaadim sikk naa pon sikk ka ko sàlloo sikkaale koy jaay yambar ya koy tuxit warunoo jub lu kër xaadim sikk naa pon sikk ka ko kenn du xool tut kenn lan na tut kenn karta tut bàyyi leen tuxumi xaadim bëggul naan ku ko soppit du soppi kuy naan bàyyi leen ceen ndax jeekul fa kër xaadim loxo caga Cheikh Moustapha Baara Madou Lamine Basiru Mam Dam Cheikh Abdou du ladde ku ko soppul safoo xaadim sikk naa poon si kaale koy jaay ne yambar ya koy tuxit warunoo jublu kër xam moo njëkka silwi sa njëkka war raste moonu may saas si diri jal dem na joy baara moom xaadim sikk koy jaay ne yambar ya koy tuxit ku sopp sëriñ Fallu Mbàkke sa loxo jox ay dañeen fukk ne ko deepal may nogay mil joxa sumben bangub di xaadim sikaale koy jaay ne ya mbar ya koy tuxit ma ne ajaabu aj bagas te néegam signalé passeport tàggowul xamoo fu mu jëm may baatam sikaale koy jaay ya mbar koy tuxit ku sopp Sëriñ Fallu sa loxo ca kaw jaxay altine maatam talaata kolda di ber jaxay altine maatam talaata kolda ñi ñibbisi àllarba njëlu dem jar na may baatam sikka koy jaay na yambar koy toxit ku sopp sëriñ Fallu sa loxo ca ko am tox dafay lakk ay sër di la ak man bu ma doon toxit dama koy bàyyi ngir xaadim ka tut bàyyi leen toxu mi na leen di naan kafe am moorit dafay tey naan kafe di durus ci xasida yi ngir jëmi Serigne Touba. Serigne Touba rek dafay naan kafe di durus ci xasida yi ngir jëmi Serigne Touba leen di naan na leen naan kafe na leen di naan kafe na leen dafay naan kafe di durus ci xayde ngi jëmi borom Tuuba lépp lu ñuy naan ah. kafe gi moo daan moom la nuy naan ñun ba xam ku daan waaw kafe gi moo daan moom la nuy naan ba xam ku nuy daan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool